bu ñu nee ndox du bàyyi yoonam man ma ne joolaa du bàyyi yoonam ci wàllu cosaan ak aada loolu li ko firnde mooy gan gi ñu am tey ci seen rubrique musique d'ici et d'ailleurs turam di wuyoo usmaan sànne nekk artiste musicien auteur compositeur bawoo fii ci réew mi rawatina Casamance. Ousmane Sané mu ngi def musique boo xam ne mu ngi jéem a fësal li nga xam ne moom la nàmp jóge ba Helsinki si réew bu ñu naan Finlande. moom na gannaaw ba mu amalee ay tukki gëstu cofeelam si musique nekk na lu yàgg jaar ci fecc bale ak tëgg jëmbe xeetu musique bi muy def nekk na lu am rythme loolu di tekki ay originam jamonoonteel nag ak ay artist yu mag ci réew mi moom ma nga yëngu sa bitim réew lu ëpp fukki at nekk ku ràññeeku sa foofe jamono ji mu ñëw senegal ngir mën a xamale boppam ak lii di public sénégalais bi naam génnagul sax album fii ci réew mi si kaw loolu mu jot a def ay prestation première partie duo bi di Pape Cheikh